bon maa ngi tudd Pafal mu gën maa ngi tudd Mademba Fall ñu gën ma xam ci Pafal coordonnateur COJER bu Sam Notaire bon mbokk boo gisee tey ñun ñu ñëw fii c'est parce président de la république président Macky Sall moo woowoon COJER bu Géejawaay fii si biir palais bi audience gannaaw loolu ñun ñu woo ñu ñuy wax benn liste bu 175 personnes ñu def ko au niveau de Géejawaay ñëw fii ñu ñëw ba fii ñu ne njabootu Lat Diop bi ñu dugg c'est la deuxième ou troisième fois lu mel nii di am ñun nag Géejawaay lañu nekk waxoon nañ ko temps yële passé bokk APR nekk ci wetu président Lat Diop di liggéey président Macky Sall boobu ba tey ba ñu seeyalee suñu parti le 13 février 2015 ba tey vendredi boobu moo ko fàtte mu ñu ñëw fii ci pale bi toog ak président Macky Sall mu waxanteeg ñun kaddu gor waxanteeg ñun kaddu fulla ak kaddu responsable ñun nag ñu nekk ay ndaw ay responsable nekk ci wetu président la Diop di liggéey moom guddeeg bëccëg ci biir Guédiawaye ak ci biir Sénégal yëpp kenn umpalewul dooley président la Diop ak dooley ndaw président ak femme président Lat Diop biir Guédiawaye ak ci Sénégal yëpp kon nag ñu ngi arrêté président la République trop c'est trop parce que li xew au niveau euh, de Guédiawaye ba ci biir parti APR fële daf ñu metti trop waxoon nañ ko nii képp ku ànd ak président la Diop dañ la wan seen diis ay loxo wala ñu wan la di la def ay façon ñun ak ñoom ñoo bokkoon ndik ba ñu seelee suñu part di ànd ak ñoom di liggéey si groupe whatsapp yeeg ci lépp bu ñu ñëwee réunion sax ñu ànd ak leen rax pourquoi ñun bu ñu ñëwee biir APR fusionné suñu parti di ñëw di liggéey ak ñoom c'est parce que dañoo bokkoon gis-gis ak président Macky Sall moo tax ñu def lu mel ne léegi nag bu ñu demee nag ba gis ni frère am ak ñi mu àndal biir Géejawaay bëgguñu ñëw teg bët bëgguñu ñëw jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom moom la ñuy defal président euh, Macky Sall kon nag ñun ay mag lañ duñu ay ndaw ay mag ñu jëmm lañ dëkk biir si biir dëkk bi dëkk biir géej waay di jëleen jël nag suñuy responsabilité dinañ jël suñu responsabilité ba mu mat sëkk parce que cash-cash bi doy na yenn yi doy na dootuñu ko nangoote président Macky Sall nag njabootu président Lat Diop jeunesse bi ñoo waxagul te lii lancement la rek bu ñu lay lancé di la ko wax di la ko yëgal avertir parrainage bi commencé nañ ko bu yàgg di parrainer liggéeyal nañ la lu bari lu bari liggéeyal nañ la ko pour nga am euh, deuxième mandat premier tour mais nag suñu naataango yi nekk fële biir Géejawaay en commençant par ton frère et l' ensemble des soi-disant yi nekk foofu ñoom jàppale wu ñu dimbali wu ñu benn moyen politique musul jugee si ñoom ñëw si ñun amul benn poste politique bu jugee si ñoom ñëw si ñun du dara du dara bañ seere suñu parti lu dul Lat Diop suñu président moom mooy jàppale moo ñuy jàppale guddi ak bëccëg suñuy programme ak lépp lu ñuy def kon nag bu ñu demee ba ñëwee woote ñu Cogeru euh, Guédiawaye si biir palais bi fii kon président Macky Sall kon ñu kenn ñu fàtte ginnaaw sa cinq coordonnateurs yi nekk Guédiawaye ñuy ñoo ñuy wax xam nañu bu baax ñun bu ñu yëngalee Guédiawaye kenn du yëngu bu ñu taxawee Guédiawaye kenn du wax lu ñu bëgg mooy am Guédiawaye à partir d'aujourd'hui nag dinañu dégg nag dinañu dégg dinañu dégg te dinañu dégg président de la bëgguñu nag wax ji ñu naan mu mel ni ay waxu chantage ñun duñu chantage kenn parce que dañ laa gëm moo tax ñuy ànd ak di liggéey yow mais nag suñu joxul suñu cër dinañ jël suñuy responsabilité ba mat sëkk loolu la amoon ci lu ma ciy wax ci turu kaw ci turu ndaw Kogère yi nekk Guédiawaye jërëngeen jëf merci